permanent fi mu nekk nii laa la wax yéen kaay groupe Futurs Médias gi ne variant bu bees ba nag daal di dikk xajamal ca rajo maa la ko wax le quotidien yéen kaay ne dama ne la waa kër docteur seen syndicat yi same soi ña ngay yëglu de ndaxte nee nañu boo sàgganee dootul yàgg dara ñi nekk diggante dund ak dee cas grave yi waaw dootuñu amati ay lal yuñ tëdd de maar di tali ilahi la la réew mi quotidien ak ndaje diine yeeg loolee ne daf tribune yéene kaa ne corona gi nga xam ne kon dafa dellu saat doole ni lée waaw waaye waa kër kan moo leen fas yéene jox nag ay ngànnaay looloo jara laaj réew mi quotidien ne en tout cas juróomi doomu aadama day nañu allahu akbar wàllu wér gu yaram googee ba léegi ni lée direct news nee na directeur u hôpital CTO day lànk na de bañ na de ne tontu njabootug dem si yàlla Pierre Ndiaye te njabootug Pierre Ndiaye googee rapportu seen mbokk mi day la ñuy laaj waa hôpital dossier médical ba pour xool nag prise en charge bi dossier médical bi njabootu Pierre Ndiaye gi day juróom-ñaari weer a ngi ni lée ñuy laaj waa CTO seen laaj yooye waaye Saliou tontuwul ba léegi ni la de ku ne wàllu wér gu yaram day xel yëpp dem ci ndox dëgg la ubbil Sud Quotidien nañu ministère waaw am na ci kuréel goo xam ne day jug na fas yéene mobiliser nag askan wi la 24 heures kaay ne dëgg la kuréel googee kay ak FRAPP waaw nee nañ boo sàgganee nag danañ porter plainte kon waa seen o ndax damm nañ taay nañ ci seen o balaa may dee ñaari fan yu ne ñu bëgg a génnee communiqué waaw pour des raisons de ñeng ñeng ñeng patata dañuy liggéey fii les robinet dana tëj ba lii tebu facture bi génnee daal di seer yow ca jamono joo xam ne askan wi ndox a seer xaru tabaski baa ngi nii lée teree nelaw borom kër ya delta corona gaa ngi nii lée ne salaamaaleykum yow te jamono joo xam ne nit ñee ngi dee di lambar lambar rek yooye ca la Macky Sall nag moom nekk ci kaw jaww ji waay samba di ndaataata la dëggu ndaandaata konoos inauguré ak roppalaan goo xam ne day juróom benn fukk ci ay milliards la jar yow te jamono ju tar jile ba mel ni tiraayu ba mel yaa nga Mauritanie ci Mohamed Ould Ghazouani Mamadou Lamine Diallo day te kii ci 24 heures waaw nee man li ma jaaxal a am gi lée ñoo gën a a ne maar day taal Macky Sall nga dem barki dee mboo njaay ci kër Momar Sarr naan ndox moomee mooy dikk ci Ndakaaru ak Thiès te waa kër Momar Sarr googe ndox na leen rey Mamadou Lamine Diallo ne demal ca Ngadiaga foofee nga xam ne la gaz ba ne waaw askan wa ndóol wa ñuy dund ci boppam doy na waar demal ca Kédougou gee mooy région bi gën a ndóol pauvreté boo xam ne doy na waar te xoolal Kédougou ak la fa am ca or tribune kaay ne mais xoolal ma jafe-jafe bi nga xam yéene kaay ne Dakar la le syndicaliste yi song laa la wax di directeur général ba ci yorin gu bon liggéeykatu Dakar dem dikk yooyee ci ay nit yoo xam ne kon xuusmaa ñàpp yaama neex lii luy ndeem sur saane loolu la gars yi di kaste waa Dakar dem dikk yooyu song nañ des waa impôt domaine day waaw ñin na nga bokk fii ci wàllum liggéey wala la nga bokk fee ci wàllum politique taxul mukk ñuy taxas di féete genn wet sur quotidien Ousmane Sonko mi kalaamee woon te 94 milliards day Mamour Diallo tribunal ba na koko encore de da koo débuté waat de ca jamono jooje news nee na Alaaji Malick day meeru ñanda dèjà aseti waaw acey tamit acey tamit day ko xam boobee ndax la mu defal kon étudiant day ma fa tege Alaaji Malick Gaye ak Abdoulaye Daouda Diallo te Macky Sall ak Fouta Fouta mojji rek Fouta mojji la ko tijee yéene kaa ne coppite bi ci code électoral ba bu 92 ba dellu soit de parce que article ak L4 ba ba waaw mais moo soppee ku nekk L29 ak l bi tey Khalifa Sall kay lam voté woon 92 looloo ko def tey waaw laas ne bi seen sànni tàccu gaa nii évidence yéene kaa ne en tout bu Golf ba la ca Guédiawaye waaw waaw diwaanu Kaolack gale Abdoulaye Xuma APR waaw jël na fa ay militant wu Sonko de sur libaas laay mbuub waaw allié Macky Sall la day ñu ko doon atte ngir wàllum escroquerie njuuj njaaj waaye atte ba day théâtre de la doon saf parce que libaas laay mbuub nee na attekat bi policiers yi daal ay 22 heures lañ ñëw sama kër ma leen may leen ma tuute ma lekk sama ginaar yi nga xam ne togg nañ leen ba pare waaye policiers yi nanguwuñ maa may ma lekk sama ginaar le juge wax nga dëgg bu la neexee nga dëj ma waaye moom di nga ma tëj ba damm caabi ji réew mi ko yéene waa bu gaseli moom borom faux waaw nee na man lan la ma sonko gën a mérité yéene kaa ne waxal ak sa waa nguur ñu teel laa ate nañ woo justice mu gaaw laa ate yow bu gaseli bu ko defee di nga tontu sa bopp libération yéene kaa ne gis nga faux billets yu bari yooyee nga xam ne la gendarmerie jàppoon te Kër Massar waaw sëriñ bi di Adama Ndiaye day ndeke ay faux